asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi si wur seen site internet bi di 24 actu comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak saa su nekk ci naafilay weeru koor wi tey nag ñu dikkal leen ci guddik fukkeel gi ak ñeent juróom-ñetti rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon isa jaa juróom-ñaari yoon ñu fàttali leen nag ne ñeenti sëlmal lay nekk juróom-ñetti rakan la naafila gi di nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon isa jaa ñaari yoon ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la ñuy jàpp koor gi di 5 heures 20 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu taftalee